برزخ المحلوم سيدي ومولاي الشيخ أحمد التجاني وعن خليفته على الإطلاق سيدي ومولاي مولانا الشيخ إبراهيم ياس رضي الله عنه بوكي yi ñuy seetaan ci réew mi ak bitik de bitim réew maa ngi leen ñuy nuyu yéen di am mbégte ak kontante di jàkkaarloo logen si bis yu tedd yi nii waaye tamit rawatina si weer bu tedd bi ni muy weeru safar weeru safar képp ku ko dégg rek yaa ngi dégg sa xel nga dem si mawlana cheikh ahmad tijani sharif radiyallahu anhu mi nga xam ne moom mooy borom safar ndax si weeru safar si la ko yàlla maye maqaamaam bu mag boobu noonu maqaamaam bu kawe boobu maqaamaam bu tedd boobu nga xamante ne yàlla nëbb na ko kudut moom ak yonent bi sallallahu alayhi wa te ci weer safar bi la ko ko may comme weeru safar bi weer bu barke la yonent bi sallallahu alayhi wa dafay wax ne inna lillahi في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعلكم تصيبكم نفحة لن تشقى بعضهم بعد بعد أبدا النبي صلى الله عليه وسلم دا فا وخني ان يالا امنا اي بيس يو خمنه داف شي ام دف اي نفحات نفحات موي اي ماي may mooy ataat ak xayraat waaye soo ne xayraatullaahi wala nga ne ataatullah xayraatullaahi mën ngaa wax ne jëmm ji moo koy gën a soxloo yaa ngi dégg niki lekk ak naan waaye amma ataatullah may yàlla yi yu kawe yooyu yaa ngi dégg yooyu jaam bi daf koy préparer yaa ngi dégg si xol bu set yaa ngi dégg si xol bu sell si xol bu daal si xol boo xamante ni moom mooy mën a dékku yaa ngi dégg may yu kawe yu tedd yooyu noonu te bis ci mel nii rek yaa ngi dégg la jaam bi am force yaa ngi dégg pour garlu yaa ngi dégg may yàlla yu mag yooyu noonu yu tedd yooyu noonu kon neen ci bëril di zikar di bëril ci tamit di jàng salaatul faatixe waaye tamit di jàng alxuraan ñaa ngi dégg ngir ñu mën a dékku may yooyu noonu nga xamante ne yàlla nga koy gaaral ci bis yu tedd yi nii muy bisu safar bii nii nga xamante ni euh, bis la bis ay bis la yoo xam ne bis yu barke la <coughs> weeru safar nag comme nuñ ko waxee mooy weeru Cheikhu Tidiane Cheikhu tijaan bi nga xam ne moom la yàlla def muy borom tariqa di tariqa yi mu jëlee ko si yonent bi sallallahu sa wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo mboolem sëriñ si yaa dégg man maay sa sëriñ yaa ngi dégg man maay sa murabbi yaa ngi dégg man maay say taalibe samay taalibe leen yaa ngi dégg waaye tamit say asxaab samay asxaab leen yonent bi sallallahu alayhi wa moom moo ko waxoon loolu kon tariqa bu màgg boobu noonu bu tedd boobu noonu yaa ngi ku yàlla dimbale ba nga bokk ci yaa ngi kon safar bi nii war ngoo di ko màggal bu baax a baax a baax a baax ndax si la Cheikh Tidiane radiyallaahu anhu eegi woon si maqaamam bu kawe boobu boo xamante ni yàlla nëbb na ko kuréel moom ak yonent bi sallallahu alayhi wa ñu koy amal fii nag. ci Medina bàyyi ci Kaolack ci buntu kër Mawlana Cheikh Hassan Deme si déngreb Cheikh Ibrahim Niass Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu Cheikh Hassan Deme moom xam ne moom moo ñu sunnaal sunnaal su rafet nii moom moo ñu génneel bis bu tedd bii nii ndax mos naa dégg si Oustaz Ali Ndaw muy wax mi ne laytul katmiya bu fekkoon ne eh, yaa ngi dégg cuuraay la seen xasan dem mooy ki nga xam ne moom moo ko lakk bañ ba xet gi mën a ak si yoon kon seen xasan dem moomu moom moo ñu génneel mi katmiya muy ngeen muy muy katmiya muy bés bu màgg muy bés bu tedd ñu koy amalee fii yaa ngi dégg si na bàyyi si buntu këram Cheikh Hassane moom moomu nag ku yàlla mayoon la ci yooni tijaan yi ndax Oustaz Barham Diop radiyallahu anhu yàlla na ko yàlla yaram mi na coo na Hassane Dème tijaan yetu la luy dox ci kaw suuf maa ak tijaan ya soo ko bëggoon laal rek yaa ngi day bun ngaa laal Cheikh Hassane Dème ndax Oustaz Barham Diop moom moo seede seede bu kawe bu tedd boobu noonu si Mawlana Cheikh Hasan Dem radiallahu kon nag suñ agsee si bis yu tedd yi nii yaay day xel yi danañ ko daj danañ ko fàttaliku waaye tamit danañ ko ziyaara ndax moom moo ñu ko génneel jaamu yàlla bu sell la jaamu yàlla bu bu bu tedd moom Mawlana Cheikh Hasan Dem yàlla boo xamante na ku liggéey la ku liggéeyal ay sëriñam di ku liggéeyal bàyyi ba bàyyi gërëm ko ndikk loolu ku liggéeyal loolu sëriñam la Cerno Seydou Sohra mi nga xam ne moom moo ko joxoñ Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu si xissa bu gàtt bi nga xamante moom moo ko nettalil boppam moo ba gannaaw ba sëriñam dëddoo génn àdduna mu fekk moom bëggatoon dara lu xam yàlla dellu si yàlla rek sëriñam génn àdduna tegtal ko Alaaji Ibrahima Niass نكون دبل كولاخ إذا إلى كولاخ وإلى الحاج إبراهيم يس ليس على ظهر الأرض من أعلم بالله منه من نكون دبل كولاخ دمن سيكر الحاج دمن سي الحاج إبراهيم يس أم تي سي كوسوف كو خم يالا كو ملني موم يعني داي كون لولو كوكو دوندم ييب اي دروس لا اك عبر نيت ني وريندي سي جانغي ndax mom deggu rek moom moo ko àggali yaa ngi dégg fu mu àgg nii yëpp ndax ba muy nekk ci sëriñam Cerno Seydou Soxra dëggu dëggu ci moom loolu di nga xidma ba mu gërëm ko su dëggutoon rek ba sëriñ ba génnee àdduna rek fa day am waaye dëggu bi dëggum dëggoon ak bëgg gum bëggoon xam yàlla ak dëggum ci dëggoon ci àndoog gum àndoog sëriñam kon ñu déggee si ne war nañoo ah, jàngee si moom nit soo nekkee sa sëriñ da nga koo war a bëgg waaye tamit da nga koo war a xidma yaa da ngaa war a dëggu ci kanam yaa ngi dem ndax nga mën a am njëriñ li ndax euh, Mawlana Cheikh Hassan Deme radiyallahu anhu yaa soo bëggee xam maanaam natiija xidma bu mu xidma sëriñam ak dëgg gu mu woon si sëriñam yaa ngi dégg loolu moom moo ko indil mu ñëw si Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ndax su dëgguwutoon rek kon ba muy bay sëñ di génn àdduna rek fa la yëf yi waaye dëgg gu ak bëgg gu sëriñam ak bëgg gu mu yàlla moom moo ko indil ba sëriñam fàddoo tamit feeñu ko ne ko demal Kawlax demal si Alxaaji Ibrahima Niass amul tey si kaw suufu ku xam yàlla ku mel ni moom loolu leçon la dars la ñëpp war nañ see jàngee nit soo nekkee si sëriñ yaa ngi dégg danga ko war a bëgg waaye tamit da war a nekk koo xamante ni ku dëggu nga yaa ngi ndax bi sidqi wal mahabbati si mbëggeel yaa ngi dégg ak si dëggu mooy laa fi nga xam ne moom moo lay jëmale ci kalam ba nga àgg fi nga bëgg a àgg kon ñi ngi ziaré Mawlana Cheikh Hassan Dem bax bax bax ci bis bi ci dengrep Mawlana Cheikh Ibrahim fi ci Medina Baye di o oh, ñep ci bés bu tedd bi ni yëpp muy ci kenn ngant nak ndax bis la yo xamanteni limu ko waxee ay bis yo xam yalla daf ci gar ay ay ay ay mayam ay ay ay mayam ci safar bi yëpp waye ñu ngi ci oo oh, ñep timit ñu ñew ci jamm yaa ngi dégg ñu àndandoo dundal guddi gi ci jàmm yàlla defal ñu ci tawfiq defal ñu ci taysir yàlla eggale ñu ci maqaama yu gën a kawe yàlla def ñu ay dëgg-dëgg tijaan yaa ngi dégg yàlla def ñu ay dëgg-dëgg Mawlana taalibe Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ba man di gën di taxawee bis yu mel nii nii maa ngi woo ñëpp. maa ngi ziyaara ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan.